nuun wal qalami wa maa yasturuun mbokk jullit yi gannaaw ñaareelu édition jongante yaatal mbindum alxuraan mi ñu doon amal ci réew mi ak cant ak ngërëm yi ñeel mboolem ñi bokkoon ci jongante bi C3S compagnie Serigne Seck Sénégal ñoo am mbégte di yëgle remise des prix yi di bésu jébbale lijaase yi ak neexal yi ñu di ko amal ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru mai di 26 mai 2019 ca Grand Théâtre ñu tuddee ko Serigne Jëmb Cissé di ko yëgal mbokk jullit yépp kilifa diine yépp Serigne daara yi ndongo daara yi ak mboolem ñi bokkoon ci jongante bi di ko Hadj Macky Sall ministre de la culture mboolem gouvernement bi ak mboolem ambassadeur réewu jullit yi ci Sénégal bés bango remise des prix deuxième édition jongante yaatal mbindum alxuraan ak C3S ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru mai 2019 Grand Théâtre mise en place huit heures.